xam ne moom moo waral le mouvement reçu le mouvement reçu c'est le renouveau de la culture sénégalaise waaw moom mooy coppite reçu mooy coppite aada ak cosaan bi naam kenn mënu soppi aada ak cosaan dañu ñëw rek indi ñu nit sunu ah, xam-xam bu ndaw daal di koy proposé du baaba am di kese baaba am di ak ñi muy àndal yéen a ngi gis grand laay yéen a ngi gis euh, baax yaay yéen a ngi gis Maxi Diagne ñi ñëpp ñu xam leen ci milieu théâtre bi ak cinéma bi reçu dafa ñëw pour indi daal di ne il faut ñu xàmmee d'abord kan mooy yëngu ci aada ak cosaan ba pare wala ñu mën a régler problème yi parce que boo amoon tamit mille milliards te xàmmee woo yëngu ci aada ak cosaan da nekk ci problème reçu daal di leen identifier loolu avant feebar bi di ñëw la mm-hmm. reçu daal di tàmbali identifier leen créer ay carte professionnelle numériser ko ba nga xam ne boo ko scanné turu nit ki doog a feeñ atam doog a feeñ fi mu dëkk doog a feeñ parce que reçu dafa bëgg a respecter li ñuy wax la protection des données personnelles maanaam lii nga xam ne yaa ko moom mu bañ a feeñ ci carte bi sànq scanné wu ko reçu daal di tàmbali bancarisé maanaam tijjil plus de 700 membres ci benn bës ay compte bancaire gratuitement ak banque UBA loolu loolu reçu ne du taxaw di ko wax jotagul waaye reçu di xamal nit ñi que ne waa ji laaj na ma ko léegi def ko dagg reçu du ñaar ñetti nit reçu mu ngi ci 14 régions yi reçu mu ngi ci 46 départements yi reçu mu ngi ci diaspora bi looloo tax ba ñuy seddale fonds force Covid 19 yi reçu ëppale ci waa ci côté musique kese reçu am 112 millions. ci côté musique kese donc la nguur waxtaanoon ak ñun def na ko mënuñu ko contre. tegiwu ko nguur bu ñëwaatee daal di ne beneen 450 milliards mu ngi fi pour les jeunes waxul kii musique kii fecc kii araw. kii euh, def transformation alimentaire noo waxul loolu dafa ne képp kuy sénégalais a ah, yoon la ñu ñëw daal di leen wax ne comme da ngeen ci génne ñi nga xam ne dañu am 40 ans a ah, loolu kat du lu gën parce que ñooñu 28 ans la ñu amoon en 2012 ñu leen di wax rek ñu xoolaat niñ ko defee. àdduna bi. lépp loo gis ci àdduna politique la. lii ñuy def nii politique la parce que boo demee bay woo ay ay nit di jàllale ay message woo ay caméra nga déguisé ko nga ñàkk ko déguisé yaa ngi def une politique moo xam ndax politique culturelle la moo xam ndax eh, leneen ak leneen la waaye Baba Hamdy amul ambition maire du lu ma intéressé am na yu bëri yoo xam ne du lu ma intéressé li ma intéressé c'est le renouveau de la culture je dois amener ma pierre à l'édifice Baba am di ñëpp lay liggéeyal kii ne ci pouvoir bi ak maa bari xarit ci pouvoir bi ak waa reçu ñoo bëri xarit ci pouvoir bi ak ñoo bëri xarit ci opposition bi ak ñoo bëri xarit ci parti société civile bi loolu mooy reçu s'il day liggéey ak ñëpp dafa tëddee njaxanaay ku ñëw suba mu liggéey ak yow parce que dama leen di laaj benn question ma laaj leen benn question est-ce que am na sens nga jël base de données maanaam fi turu nit ñi nekk ak fi ñu dëkk nguur taxaw nga jox ko ministère de la culture beneen nguur taxaw nga ne duma ko ko jox est-ce que am na sens amul sens li am sens mooy état continuité la ak ku mën ci toog mu neex la yow président bi wala secretaire général bi ku mu neex la mu nakka di ku mën a toog da ngay liggéey ak moom loolu nañu bindee reçu